Ibra Fall euh, Bambilor euh, yaakaar naa man moom ñëpp xam nañ ma fii ni si dëkk bi ok jërëjëf waa Impro maa leen nuyu bu baax di kontaan si xam naa ne heure na trop mais xam ne xam naa da nga ne yéex a jot information waaw maa ngi xam avant tout nag li ma njëkk a mooy man bañ toogee ca salle man maa nañ ko photo ah, envoyé ci internet bi man man parce que li nga wax kat da nga koy wax moom te te su ma juumee Bambilor fii nii euh, ñoo foto woon ak maire ñu ci internet bi ñoom ñoom ñëpp bànqee ba mu def daaw ku ci ne foto waa nga ak maire bi man na heureusement ba te commune bi laa dem ñu ko tegee ñëpp ma ne waa ji foto ñëpp dugal ci internet bi. Ah, sànq ma dégg nga ne dama àndoon ak responsable politique muy Moussa Diop Moussa Diop dama ah, ànd ak moom fa lañ nekkoon du affaire man moom man ma ma ma fa lañ affaire waaye pourtant moom moo génn affaire dem ca Khalifa Sall man kenn daa ma sa dégg génn affaire man mais nag moom dëgg la nag ba mu bàyyi man laa bàyyi affaire toog ci sama ceen ak bopp léegi nag ay élection président moo ñëw ay ay présidentielle la du ay caaxaan dix-neuf candidats yi ma gis yére yi ma laaj yi bertel muy Amadou Ba moom laay campagne man maanaam amul ku dëkk Bambilor laa yor ma gis seet mbaa ma gis ruus déedéet lépp lu nit xalaat ci àdduna na nga wax mais nag maa ngi soxla man de ku wax ma man ku wax ma ma euh, li ma mën a wax daal mooy benn affaire euh, boo neexee mën kaa tudd keneen ku mu neex tamit mën kaa tudd waaye tamit xam naa yéen xamante bu baax képp ku daal liggéey ak maire xam nañu bu baax lii daal liggéey xam nañu ko baax dama ni sama man man ba tey président Macky Sall mooy sama man euh, non sama président ci réew kan dix neuf candidat daal yi nga fi gis yëpp kenn moo ci doy man pour ma pour ma ànd ak moom muy Amadou Ba ah déggoo ma ñi si des ñëpp damaa gis ñi ci ëpp boog bu leen joxee réew mi tamit réew mi day dellu ginnaaw bi ma toogee monsieur le maire dama ko ne carrément man mosuma ànd ak yow ci politique mais kii ay présidentiel ñoo ñëw bu gis naa dix neuf candidat yëpp kenn moo ci doy muy Amadou Ba te yaa ko fii nii campagne man ouma xaalis ma jël di campagne Amadou Ba au contraire sa Amadou Ba sax man xaw tamit bu deug comme ya fi nek dama bëgg man man comme man wax wax kese kese kese kese la man ci campagne bi dama sax sëf sono takkal ma ci auto lo ànd na campagne Amadou Ba te bu dee lu ñu xam maanaam bu ñu ci mbindeef ku taxaw ci kaw suuf ma dañ neexee ñu rallier naa tey ànd ak ñoom yëpp waaye nag naa nga xama ñaar doomam terpantau dapat masalah dua hati. Man semua saya gue deh. Kita tahu gitu nih saya gue mah deh. Kamu ada deh. Ini malah mana waktu mau mau sentuh nih. Kemudian Allah mau pilih ya. Kampanye terasa nyamul. Gembel masih nekal amadu bah. Teman amadu bah. Mama dojikan memulai model, memulai kampanye, memulai develop. Apa yang leaders nak Bukan pandi Pas pas saya pas saya ada soal nyamul. campagne ab maire ñëwul présidentielle moo ñëw ku neex fan ngaa kala neex man Amadou Ba ma neex man Gora Fall laa man te it tegu ci ci euh, de kenn fayu ma isna dégg su ma neexee ma neexee ma continué la ma la wax sama intérêt waaye xool ci politique mais nag comme uma sama intérêt ci politique am naa droit tamit en tant que citoyen Sénégal amna droit tamit xol ci kan day ku neex ma ànd ak moom comme ñepp yaakaar nan lo mo am naa droit Amadou Ba mo doy nak keneen keneen ko am ko doy keneen da nga ànd ak ma li jëm tuumal. instant ni ni nii nii politique ak lu man di xew ngeen jëpp la ma la àndal man maanaam pour mu gën a lees ba def nañu quoi ci politique la xool la nekk ni ni ni man ñaata laa àndal ñaata xaar dëggoo ma lépp lépp man maanaam yalla sak sàkk sóoraale nga ko man maire laa ak Amadou Ba. te yàlla na